ci saxu ak suyuti muy isaafu dawil watar bi charxi nadmi durar fi ilmi al asar jàngoon nañ nag muqaddima bi mu ne summa ala nabiyihi waaw boobu jàngoon nañ tey waaw mu commencé nag ci téere bi ne wa haadi lii alfiyatun junney bayti la wala ñaari junney bayt bu fekkee mastuuru rajas la loolu ñu jàng arut xam nañ tax kii dana niroog ak duraar ay wurusu dur manzumatun yu nose la wala nga ne manzumatan mbir mu muy luñ nose damantuha dugal naa ca biiram ilmal asar xam-xami xadis junney bayt la tax kii yuy ak duraaw wurusu dur baytu yu rafet yoo xam ne nii rafetaay ba da nga yaakaar wurusu dur la man nose ko nag way ko dugal ci biir baytu yooyu xam-xami hadis fekk lii lenn la ci xam-xami hadis waaye du lépp faayiqatun aji kawe la wala faayiqatan mbirum aji kawe alfiyatan iraq yi defaroon alfiya bi iraq defoon sama bos moo kawe lu tax mu gën koo kawe fil jami ci dajale ndax li ma dajale sama téere bi moom dajale wu ko wala ijaasi ak gàttal maa ko gën a gàttal moom dafa guddal wëtti saaq ak nose toppalante xaman ne ma indi bi ma war a jiital texte yi topp texte yi topp moom nag dafa topp rek dégg nga ibnu Salah ci lim defaree téeréem te ibnu Salah moom li mu bëggoon rek mooy dajale la teqale ci téere hadis yi moom la dajale foofu na muusi organiser ko jiite li mu war si war a teg wallaahu yàlla yujji dana fay wala yujri dana dawal saabixal ixsaani rafetal gi gën a jot yàlla na dawal saabixal ixsaani rafetal gu jot lii ñeel ma wala ñeel ko wala wali zawil imaani ak borom gëm yàlla yi yàlla fay rafetal gu ma sëkk fay ko ko moom xeraaq yi ndax moo ma jiitu ci taarif alfiya ci wàllu xadis fay ko mboolem ñi gëm yàlla wa baadu maa taqaddama gannaaw la jiitu faaqul maa ngi waxaadi lii kooku isaaratun junj la ilal maani xaadira ci maanaa yi teew fi zihni ci xel taqaddamat jiitu na alxutbatu xutba ga aw taaxarat wala mujj na maanaam lii mooy maanaa yi nga bëgg a téere bi nga bëgg a taif daal mooy xaadis yi maanaam yitteel sa xel mën ngaa defar sa xutba ba pare nag door a xalaat li nga indi nga ne xaaj yi mën ngaa xalaat ba pare door a defar xutba téere bi da ngay koo xam ne taayif na téere ba pare door a defar xutba commencement bi fekk téere bi moo njëkk xutba ko léeg-léegi mu xutba ba pare door a commencé téere bi ñooyu yëpp du tee mën ngaa wax xaaj yi وفي nag ixtimaalaat ay jamtalu oxar yeneen mazkurat yuñ tudd fi mutawalaat ci téere yu guddi woowu moom mubtadaul mubtadaa la xabaru wa xabaram xawloo may waxam alfiyatun wa haadihi mubtadaa la alfiyatun may xabaru ay urjuzatun rajas la mansubatun buñ askane ila alfin ci junne bayt in kaana nekk na min kaamil rajas ci rajas gu mat sëkk aw ila alfayni wala mu nekk ñaari junne in kaana nekk na min mastuur yi ci rajas buñ dagg benn xabb ga xam nga buñ daggee rajas mustafilun juróom benn yoon soo la neexee ñetti mustafilun nga dagg ko waaye mustafilun ñetti yoon rek dégg waaye boobu xab buñ maanaam yëpp yëpp ñooy bokk xaraf wuñ daanee dégg rajas na dafa bëri ñu ci def tasree ñaar baytu yi nekk rek ñu ne ñoo bokk xaraf wuñ daanee def nañ ko tasree moom moom loolu da ci yomb su nag ku woyee noonu ñaari bayti maanaam xab bu njëkk bi ak xab bu ñaare bu njëkk bi bayti boppam xab bu ñaare bi bayti boppam la kon benn ligne boo gis ñaari bayti fa nekk su ku fi defar lu mat junnee bayti ñaari junnee bayti la boo jàppee benn ligne bu nekk benn bayti la kon junnee bayti junnee bayti la wala yu raddu duñ delloo xale moom maanaam duñ ko tontee maa fii la nekk ci wax ji mais lab ci ci lënt xam nga alfiyatu ne la wax loolu doo xam ñaari junne la ci nam doo xam junne la ci nam mu ne loolu garaawut lënt lënt boobu du tee jàpp ne mën naa firi ñaari junne mën naa firi junne li àndoom ndax borom xam-xam ndax yi laa yu baalu na faale wuñ ci lant fi nisab bi ci wàllu askan xala wana ibnu malik wa alamu tasniyati waxala ma tës nii ci mandargaay ñaar ñaar ihzif na nga ko xasaf li nasabi booy askane wa mislu za comme nii jami tasxiin ci jamu bu wér wajab war na tey muslimaan boo ko doon tas nii boo ko doon nisba da nga rek alif ak noon nga ne muslimiyun rek muslimoona muslimiyun muslimaatun muslimiyun mandargaay jamu bi da nga koy dagg sànni fële mandargaay musanaa gi dagg ko sànni fële moo xam ñoom mu mutasari wala mu anasari looloo waral boo ne haadihi alfiyatun ngay wax mooy mubtada bi mooy mooy jigéen moo tax xabar bi nekk muslimaatun moom boo eh, nisba nga naan muslimiyun rek kon boo waxee alfiyatun firi ñaari junne yaa tax kii li firi ay tushaabi day niroog ad durara warusu duru jëmu duratun ويمم الأولة من ورس العظيمة بمد الكبيرة بري تشابهها دفين رموم في النفاس التسير وعزة الوجود الجفة أم ورفعة القيمة أيك تلك درجة صفة ناطرة لألفية يا الجنة هذه ألفية تحكي كم جملة بعد النكرة صفة جملة بنيو يغنى نكرة ناطرة انك يجابت ممزومة صفة ملوكال صفة يجب junne yooyu baax na sifata a mel sifata ba ñoom pour mu ñu jëmm ji rek haajili alfiyatun junne la tax kii dur na bu niroog wus dur leeral na junne yi ni mel mu ne man suumatan buñ nose leeral na boo defee man suumatan mu nekk naatu aw xaalum wala mu nekk xaal boo defee man suumatan def naa fiyaa ci moom elmal asari xam-xame xadis yu xaal dañuy wax ne dammantu dugal naa asiya mbir mi kasaali ay jaxaltu def naa mbir mi muxtawiyan mu aji làq alay ci moom fa tadammanu mu làmboo ko ay fastamala mu làmboo alay ci moom waxtu waa mu làq ko xaaloo wax na ko mu borom misbaa fi misbaa ca xaamas boobu di misbaa woowu loolu mu wax nag ne def naa ci téere bi xam-xami xadis min baabi jaalil madluuli muy bokk ci buntëb def la ñuy tegtal fi daali ci la koy tegtal téere bii dafay tegtale xam-xamu xadis kon téere bi mooy daal mooy tegtale xadis la muy tegtal mooy lan xam-xamu xadis mu ne nag la ñuy tegtal mooy xam-xamu xadis moom la dugal ci li koy tegtal fekk téere bi dafay tegtal rek xam-xamu xadis waaye lépp xam-xamu xadis koy xaju ci biir arab day waxee noonu léeg-léeg li nga xam ni moom ngay joxañ nga dugal ko ci biir la nga xam ne dafa ñëw pour joxañ ko téere bi dafay joxañ rek xam xam hadis moom mu ne xam xam hadis la dugal ci biir téere bi te téere xam-xami hadis mooy lañ lam la bëgg a tegtal loolu waxin la maanaam la ma ci def lépp ci xam-xam hadis la bokk loolu la bëgg a wax rek aw jaxale jus i wala mu bokk mu gën a leer mu ngi bokk ci buntab def lenn fi kulli ci lépp téere bi lenn la ci xam-xam hadis xam-xam xadis gi mooy lépp mu ne moom lépp li la def ci leer bi xam-xam xadis la def ci biir téere te téere pourtant lenn la rek si xam-xam xadis loolu mooy jaanul jus fil kulli def lenn def lépp ci lenn xaaloo wax na loolu fi saare yi si saare wu aji saraaja dégg nga وقوله وهم علم الأثر كم سمي أثر أي مسائل وما مسألة لشنا مسألة حديث لشندي هم من إضافة العام من بوكسي لافق عام إلى الخاص تشيلو جاكو علمه عاملة حديث دوغنا نحو لغة فرنسي أنجليب asar nag moom xadis rek la léegi mu jël ilmu laafal ko asar kon am la jël laafal ko xaas comme ni ñuy waxee sajaru araak garabu araak sajar moom garab yëpp dugg nañ ci araak xeet la ci xeeti garab yi mm-hmm. kooku idaafatul am la ilal xaas wala asar asar bi fatil hamza di ci fata hamza gi wa ak saa luxatum làng la baqeeti shay mooy ndesitu dara asar buñ ko waxee mooy ndesit daaw gis nga baat bi buñ la waxee asaru nangam mooy mbiram daal ah lam ba mu def yére yam jëfandikoo yooyu mooy asar xamul mu bëgg wax waaw mooy kii yàlla waaye songul mu bëgg wax daayim bi la daayim bi parce que laa yakunu turaaban faqat noonu laa la bëgg jiw xamul nga wasilaan laa nga muy wax mën a def mën a def rek ko xam واستلام تجفنكم من فقه ولا من حديث على حديث ما حديث مرفوعات ما خم كان نكنا مرفوعات من يكتي أو موقوفة ولا من تخوال على المعتمد تلين سكنكم كان نعم. واستلام تجفنكم من حديث على حديث ما حديث مرفوعات كان نكنا مرفوعات من يكتي أو موقوفة ولا من تخوال على المعتمد تلين سكنكم hadis moo xam marfon la wala boog si saaba bi lañ ko tënk mooy mawquuf yëpp asar lañ koy tuddee ba minu bokk na si saxu maani asar leeral maanaay xadis yi lil imaam taxaawi listimaali yi ngir làmboo gi làmboo moom téere bi alayhima si ñaar yëpp xadis saaba yi xadis yonent bi وين قصره دير تنكرو بعض الفقهاء ينين سي بروم خنخم في خيار الموقوف دا فام ني اثر موي حديث بن تنك سي صحابه رك ام ني دير اثر موي حديث رك مو خم صحابه وخي صحابه لا ولا سين جف ولا لون جف سين كرام ني نانغوكو ولا وخي يونتي بي ولا جف يونتي بي ولا لون جف سي كرام يونتي مو كما سياتي كوم ني ديكي قالو واخنا الصحابي كون اثر موي حديث رك لولو nañ ko bàyyi xel dégg nga asal mooy xadis bu mu mën a doon rek wa ilmul asar xam-xami xadis ay lu ma ci namm alxadisu mooy xadis ilmul asar mooy ilmul xadis yutlaqu danañ ko booyal alal maana yi ci ñaari maana xam-xami xadis ñaari façon xam-xam la كم كم حديث نعرف فصوم كم كم لا أني أربي رمولهم كل أسر كم كم حديث يطلق درنكو بوين على ما نينس نعرف معنا علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية وتين انت فيري منك علم الحديث دراية مويلا موي كم قم المصطلح والحديث موي قم قواعدي تنكي كم دني ci la borom xam-xam yi di nattee ba xam hadis bi wér na wala wérut loolu mooy diraayatam naka la ñuy xoolee hadis bu wér ak bu wérut tënk-tënk yi takk yi mooy li ngay jàng ci téere bi rek loolu mooy ilmu hadis diraayatam noo gën a xamee tënk yi ñuy xamee hadis bu wér ak bu wérut rek cosaan yi lay yi fa ngay sukkandiku ba xam hadis bu wér naa wérut noonu nga gën a xóotee ci ilmu hadis diraayatam ilmu hadis nag am na ñaari wax ñii ne mooy masalaay ak mu mustala maanaam ci misaal boo xamee lan mooy xadis bu wér loolu ilmu xadis diraayatan la léegi nag xool bi ngay xool xadis bii rijaalu xadis yi waa ji mooy kan ndax siqalaam du siqa ndax mën naa mokkal wala mënul mokkal lan la borom xam-xam wax ci ñoom masala yooyu mooy almu hadis diraayatan su boobaa dafay mel ni fiq ak usulu fiq usulu fiq mooy lay yi nga xam ne nii si la ñooñ fiq sukkandiku ba teg seen xaayida yi fiq nag mooy masala yi te par exemple kii toog di càmbar bi naan diw moo ko solo jëlee ko ci diw jëlee ko ci diw diw mii lii lañ wax ci moom diw lii lañ wax ci moom xadis bii dafa wuteeg xadisu diw bi te diw moo gën dëgër moom lañ gën a wóolu moo gën a nekk siqa kon xadisam moo gën a wér kooku mu ngi mu ngi ci xel mu xadis riwaaye tam ndax mu ngi faram fàcce affaire bi waaye ki lay jàngal naan xadis bu wér mooy xadis boo xam ne ki ko soloo ku maandu la ku mën a mokkal jëlee ko ci mel ku mel ni dégg nga xadis bi nekk xadis boo xam ne sanad bi dafa jokkoo xadis bi nekk boo xam ne du chance du lu rag kooku moo lay jàngal ilmu xadis diraayatan ndax moo lay wax qaayida bi kee nag dinaan la kii moom xadisam chance la parce que lii ak lii ak lii moom ci masala yi la nekk ci benn xadis la nekk kee xadis yëpp yu wér yëpp la la jàngal noo koy xamee kii nag dina jàngal benn xadis bi lu wér la wala wéru naan la parce que lii moo tax ñu wér na ndax kii ko jëlee ci kii kii ko jëlee ci kii kii lii lañu wax ci moom kii lii wax ci moom wala lii wérut parce kii ko jëlee ci kii kii ko jëlee ci kii kii borom xam-xam lañ koo jam kooku mu ngi wax seen muhaddis riwaayatan bee mooy nday li mooy cosaan li bii mooy bànqaas bi bële mooy nday bi bii mooy bànqaas bële mooy lay yi bii mooy masale yi am ñu ne déedéet xel mu hadis riwaaya tan xel tan dafay yóbbaale ñu waxee diraaya tan mooy masalaay mustalax yi ak boo ko doon réglé yi loolu seen mu hadis diraaya tan maanaam li lay xamal hadis bi wér naam wérut sax na jugee si yonent bi wala saxul jugee ci yonent bi moo xam xaayida bi nga jàngale tënk bi nga jàngale moo xam faram-fàcc bi nga koy faram-fàcc bi xool ndax wér naa wérul loolu bi si diraayatan la bokk xen mu hadis riwaayatan ne mooy jëmmi hadis bi la ñu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy hadis xen mu hadis riwaayatan yonent bi sallallahu alayhi wasallam njool woon gàtt woon ñu ne wax jooju moom riwaaya rek la luñ ñetteel rek la léegi nag nga xool wax ji wér naa wérul loolu mooy diraaya ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na nangam ñu ne loolu moom riwaaya la lu ñu rek la léegi xool gi ngay xool na wax joo wér naa wérut ñu ne loolu mooy diraaya xam nga ne wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëf na nangam ñu ne loolu la nettali la waaye xool gi ngay xool ndax loolu nag wér na ne yonent bi jëf na ko déet loolu mooy diraaya waaw la mel mu gën hmm? moo ñëw ci bay xóonee tamit ku neel mu hadis ñaari xaaj رواية الدراية وعلم الحديث علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية والأول بنجك في مي دراية هو مم المقصود مي لنجب هنا شتير بي وهي مم علم مصطلح الحديث مي قمق بمصطلح الحديث علم الحديث دراية مي لنجب تير بي لجانجل نك نجي من قمي حديث يوير سخ جوجي شيرن تبي أجيبر قاعدة هي تبرم قمق مي ترل تنكي هي تبرم قمق مي ترل أكتر حديثي أكتر دقري yooyu mooy diraayatam loolu nag boo ko appliqué ci benn xadis ba léegi day dugg ci diraayatam rek ñu ne déedéet boo koy appliqué rek mu dugg ci riwaayatam wa ilmu mustalahu asar ak xam mustalahu asar dañuy wax mustalahu xadis ak mustalahu asar woo mu ay mun xam-xam yoo xam ne yëpp xasu danañ gëstu fii ci moom an kayfiyati ittisaali ahadis si naka la hadis bi jokkoo bi rasulillahi ci yonente yàlla bi sallallahu alayhi wasallam hadis bi est ce que yonentoo ko waxam déet la xam-xam ba cay xool mooy xam-xam hadis dirayatu minaysu axwaalu naqalati axwaalu naqalatiha dañuy xool ci xaal yi ña ko toxal xam nga xay su jumla lay la xaal moo tax dabtan ci mën nañoo mokkalam déet wa adaalatan mën nañoo maandu maandu nañu maanduñ wa min haysu kayfiyati sanad ak sanad bi nu mel jokk naam jokkuut ittisaalan dafa jokk wan xitaan wala dafa dog wa xëyri zaalik ak lu dul loolu bi xool xam-xam bi xool ci loolu mooy almu xadis diraayte benn ki lay jàngal xaayida yi ngay xamee xadis bi baax naam baaxul wala boog jëmmi xadis bi ngay faram fàcce di xool ndax jokk naam jokkuut yonantoo ko xam waxu ko nga sukkandiku ci xaayida yi ci ngay sukkandiku ci xool ci jëmmi masal mi xam nga boo jàngee docteur dañ lay jàngal li ñuy li ñuy fajee cancer léegi waa ji am cancer ngay sukkandiku ci la noonu jàng kooku boo xoolee ci ni ñu fajee cancer bokk am ñeen déedéet boo xam di nga xam ni ñu fajee cancer mooy diraaye tant waaye kenn ki nga tiim nag di sukkandiku ci la nga jàngoon di ko faj loolu diraaye tan am loolu lépp ci diraaye tan la bokk xam gi nga xam ni ñu fajee cancer ak appliqué gi nga koy appliqué di faj ku yore cancer yooyu yëpp dafay bokk ci diraaye tan xam gi nga xam nan la ñuy xamee xadis bu wér ak bu wérut ak sukkandiku nga sukkandiku ci benn xadis di xool wér naa wérut di ko fanam fàccee loolu lépp ci alma xadis diraayitan la am ñooy euh, kenn ki ngay xadis bi xool moom di ko faram fàccee loolu riwaayitan la xam nga alma xadis riwaayitan nag ñu ne mooy jëmmi xadis bi wax ci tu meloon na nangam waxoon na nangam defoon na nàngam wala def na nàngam ci kanamam loolu mooy riwaayitan نور لا نفس لونه باسكو ريبا اي موي نغي نيكل ريب وال جمله دي جمله بي صفه النعت لا بار صفه غناو اك نعت لي الفيه ني الفيه او حال ولا حال منها تشنو بن جمله لا بوا موي دنگا من سو دمنتو علم الاثر وقلنا عطلة ولا مريء حل من دوا خمسة وهذه ألفية تحكي الدرر manzumatun dammantuha ilmal asar léegi nag tax ci durar kooku naatu la manzumatun kooku beneen naatu la dammantuha ilmal asar beneen naatu la tamit kon moo tax mooy naatu la gannaaw naatu tax ci durar naatu la manzumatun naatu la moom ñu mu ñëwaat di naatu wala nga ne moom it xaal la alfiyatun junne bayt la tax ci durar manzumatan mbir mu ñuy nos nose dammantuha mbir moom moom la dugal naa ca biiram ilmul asar إن أريد الإسلام استطعت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته